asalaamaaleykum wa rahmatullah waa Codice de la Strada euh, ñu dikk tey euh, defal leen benn vidéo rek boo xam ni ci ñaari euh, leçon yi ci lañ koy defee muy lan mooy cyclomoteur yi ak lan lan mooy motocycle yi ndax gis nañ ni ñu bari moo leen di faral di indil ay ay jafe-jafe ci quiz yi du ma dem ci leçon bi nag di expliquer mais ci quiz bi lay ñëw directement rek boo ko defee bu ko expliquer da ngay xam réponse yi directement rek. ñu war a commencé ci cyclomoteur yi cyclomoteur yi nag euh, moo ci gën a néew doole cyclomoteur dafa am motocycle yi moom daanaka rek mook auto yi auto voiture yi oto yi ñuy dawal ñun sorewuñ fu muy dem mën na faa dem daanaka rek ndax motocycle mën naa gën a gaaw sax oto yi cyclomoteur yi nag ngay jàpp ni moo gën a yéex moo gën a néew doole ci leen raata bu ndaw lay am vitesse am day tuuti léegi ñu dugg ci cyclomoteur yi euh, cyclomoteur yi laaj bu njëkk dafa wax ne i veicoli a due ruote kon motore termico fino a 50 centimetri cubici mu ne véhicule yi nga xam ni ñaari pneu la am due ruote ñaari pneu la ñu am ba pare moteur thermique la am moteur boo xam ne day sol essence wala gasoil boo xamante ni ak a 50 centimetri ci maanaam cylindre am cilindrata am boo doon jënd cyclomotore boo doon di ko jënd tey dinaan la yow ban cilindrata nga soxla cilindrata am nag moom mënut a ba bari ba ëpp 50 centimètres cubes moom cyclomotore yi e velocità massima di 45 km ore mu ne te vitesse maximum bu dawee ba daw ba daw mun mënta daw lu ëpp 45 km heure mu ne ñoo ñoo tudd cyclomotore maanaam kon cyclomotore moom véhicule la boo xam ni dafay yeex ba nga xamante ni mun mënta daw lu ëpp 45 km heure moo tax sax du dem ci strada extraurbaine principale du du dugg ci autostrada dafay dafa yeex ba pare it moteur am thermique mënta am doole ba ëpp 50 centimètres cube moom ci cyclomotore beneen bi dafa wax ne i ciclomotori possono avere due ruote due o tre ruote mu ne ciclomotori mën na am ñaar pneu mais mën naa am ñetti pneu sax è vero ancora bi ci toppaat dafa wax ne non tutti i veicoli a motore a due ruote vengono classificati ciclomotori mu ne nekkul ni non tuuti nekkul ni bépp véhicule boo xam ne am na moteur ba pare am ñaari pneu mën nañ ko wooye ciclomotore è vero ndax moto ciclo ñaari ñaari pneu lay am am moteur mais du ciclomotore bi ci topp dafa wax ne i ciclomotore li ñuy woowee ciclomotore ha due ruote te ñu am ñaari pneu non possono avere un motore termico di cilindrata superiore a 50 centimetri cubici mu ne ñoom mënuñoo am moteur thermique boo xam ne cylindre am dana ëpp dana supérieur maanaam dana ëpp cinquante centimètres cube et vert wax naa ko ci kaw moom moteur am moom mënut a ëpp 50 centimètres cube ci la yem ci I ciclomotori sono soggetti a revisione dopo 4 anni dalla prima immatricolazione mu ne ciclomotori sono soggetti maanaam eh, maanaam boo ko jëndee muy be bees tàq soo ko jógee ci usine bi nga xam ne kenn waragu ko dopo 4 anni nga koy defal eh, ginnaaw boo ko defalee immatriculation bu njëkk maanaam nga defal ko targa bu njëkk 4 ans lay daw bu defee 4 ans nag ci nga koy defal révision bu njëkk bi successivamente ogni due anni léegi boo defee révision bu njëkk bi nag chaque 2 ans nga defal ko révision waaw maanaam bu soo a génn usine bi moo ko auto véture yëpp ñoo ko bokkale buy soog a génn usine bi da nga koy defal révision euh, kii da nga koy defal targa mu am tar numéro nga dawal ko 4 ans bu dawee 4 ans nag nga defal ko révision bu njëkk léegi boo xasee ba def révision bu njëkk boobu nag chaque 2 ans da ko réviser euh, mu ñëw fii ne la i ciclomotore non hanno più di due ruote mu ne ciclomotore mënuñu am ñaar lu ëpp ñaari pneu et falso ndax wax naa ci kaw ni ciclomotore mën naa am ñaar waaye mën naa am ñetti pneu tamit mu ne la bicyclette kon pedalata assistita dafa am bicyclette yoo xam ne ay vélo yoo xam ni dañ ciy def xeetu moteur li ñu woowee pedalata assistita nga xam ne da ngay pédale ba mu yàgg nga bàyyi moom mu aw la waaye nag assistita nekkul nekkul moteur boo xam ne day nekk di daw sempre waaw bici mu ne bicyclette yooyu dotate di motore elettrico ausiliare di potenza massima fino a 0,25 kilowatt te moo am euh, moteur boo xam ne moteur électrique la boo xam ne puissance am maximum dooleem max yi gën kaa bari du ëpp 25 kilo 0,25 kilowatt mu ne ñooñu ñu ngi leen wooyee sono définité ñu ngi leen wooyee ciclomoteur yi et falso yooyu du ciclomoteur yi biciclette la sempre loolu ni mu tudd mooy biciclette kon pedalata assistita beneen laaj bi dafa xam ne si definiscono ciclomotori tutti i veicoli a due ruote di cilindrata superiore a 50 centimetri ci mu ne ciclomotori mooy bépp véhicule boo xam ni ñaari pono la ba pare cylindre am supérieur ëpp cinquante centimètres cube wax naa ci kaw ni ciclomotore mo si cylindre am mënut a ëpp cinquante centimètres cube kon falso la beneen bi dafa wax ne i ciclomotori per essere definiti tali mu ne ciclomotori pour ñu mën ko wooye ciclomotori maanaam per essere definiti tali mooy pour ñu mën ko wooye noonu devono essere minuti di cambio manuale mu ne dañoo war a am devono essere minuti mooy dañoo war a am cambio manuale cambio manuale dafa am cambio automatique am è falso nekku ni obligatoirement cambio manuale la waraan mën naa am sax automatico beneen bi dafa wax ni i ciclomotori possono circolare alla velocità di 60 km ore fuori dai centri urbani mu ne ciclomotori bu ñu génnee centre urbani maanaam bu génnee dëkk bi mën nañoo daw ci vitesse boo xam ni dana mat 60 kilomètres heure è falso ndax wax nañ sànq ni ciclomotori bu dawee ba daw mënut a daw ba passé 45 kilomètres kon 60 kilomètres a ku mënut a beneen bi dafa wax ni ciclomotore non sono soggetti a revisione periodica mu ne ciclomotore ñoom non sono soggetti maanaam ñoom waruñoo def li ñu woowee revisione periodica revisione periodica mooy moo tënk wax ji mu wax ci kaw ne bu amee 4 ans ginnaaw immatriculation bu njëkk bi dañ koy réviser après chaque 2 ans loolu mooy revisione periodica fii dafa wax ni mënu waruñ koo def et falso dañ ko war a def léegi ñu jàll ci euh, ci euh, motociclo définition am Ah, maanaam moom ni muy mel motocyclo dafa gën a gaaw ah, daanaka rek limite de vitesse yi ñuy teg auto vettura yi moom lañ koy teg moom fu auto vettura di dem mën na faa dem moo tax laaj bu njëkk bi dafa xam ne i motocicli sono veicoli a due ruote ñoom ñaari pono la ñuy am è e mu ñëwaat ne i motocicli hanno cilindrata superiore a 50 centimetri ci ñoom seen cylindre seen cylindre moteur maanaam nattukaayu cylindre bi moteur bi dana ëpp 50 centimètres cube ci leen daraata moom war ngeen ko jàpp bu baax ndax tey boo jugoon tey ne damay jënd moto cycle wala cycle motore faaw nga xam ci leen daraata bi nga bëgg sinon duñ xam lu la war a jaay mu ñëw ne la cycle motore non rientrano non rientrano nella categoria dei motocicli mu ne cycle motore nekkuñ ci catégorie motocicli è vero motociclo dafa am cycle motore am fii nag motociclo la ñuy jàng nii nii nii cycle motore moom la ñu doon expliqué sànq i motocicli possono essere dotati di cambio automatico mu ne motociclo possono mën nañoo essere dotati am li ñu woowee cambio automatico è vero mën nañu am cambio automatico mën nañoo am cambio manuale cambio mooy vitesse fi ngay dugale vitesse beneen bi dafa wax ni motocicli sono soggetti a revisione dopo 4 anni dalla prima ne moom tamit comme bee moom boo ko jëndee bees mu jógee ci usine bala nga ko war da koy defal targa mu am numéro léegi boo commencé dawal nag 4 ans lay daw bu dawee 4 ans nga soog ko defal immatriculation euh, révision na bu njëkk boo defee révision bu njëkk boobu nag successivamente ogni due anni chaque 2 ans da nga ko war a defaat bi ci topp dafa wax ni bi ci topp ñu commencé falsi yi tutti i veicoli a motore con tre ruote sono moto dei motocicli mu ne bépp véhicule bu am moteur ba pare am ñetti pneu motociclo la è falso i motocicli sono veicoli a due ruote la ñu wax ci kaw véhicule loo xam ñaari pneu am mu ñëw ne la i motocicli sono veicoli a motore con più di due ruote mu ne motocicli véhicule la bu am boo xam ni dana am lu ëpp ñaari pneu est falso loolu tamit c'est pas vrai motociclo ñaari pneu lay am il motociclo è un ko veicolo a due ruote mu ne motociclo véhicule bu mu mën a doon la boo xam ni am na ñaari pneu est falso ndax bi ci clé am na ñaari pneu te bokkute motociclo ndax amul moteur amul dara Si definiscono motocicli solo i veicoli a due ruote di cilindrata fino a 125 cm3 mu ne motociclo mooy véhicule yi nga xam ne rek am na ñaari pneu te seen cylindre dem ba 125 cm3 est falso euh, loolu dafa të dafa gàtt loolu ci définition motociclo beneen bi foo xam ne i motocicli hanno motore di cilindrata fino a 50 cm ci e sviluppano una velocità fino a 45 km/h mu ne motocycle yi moom cylindre moteur am du passé cinquante centimètres cube ba pare vitesse am mu mënta daw ba ëpp ba passé quarante cinq kilomètres heure loolu cyclomotore la du motocycle motocycle moom dana ëppal cinquante centimètres cube ci cilindrata ba pare dana daw lu ëpp quarante cinq kilomètres heure beneen bi dafa wax ne ay fini della circolazione maanaam boo nekkee ci circulation bi. i quadricycle légère li ñu woowee quadricycle légère quadricycle yi ndaw yi sono assimilaati ay motocycle mu ne ñu ngi leen nuróole ak motocycle yi loolu tamit falso ndax quadricycle légère yi bu ñu nekkee ci circulation bi sono assimilaati ay ciclomotore ñu ngi leen nuróole ak ciclomotore mais pas motocycle yi waaw léegi su ma bëggee joxee exemple ci motocycle ak ciclomotore yi image bi ngeen di gis nii moo dëppoo ak ciclomotore yi moom comme ni ma ko waxee woon pour résumer cilindrata moteur am du dépasser cinquante centimètres cube vélocita bi muy dawee tamit mënut a daw lu ëpp quarante cinq kilomètres heure jàppale ni cyclomotore daal moom nii la li mooy ay caractéristique moom dafa yéex ba nga xam ni cylindre moteur am dafa dafa tuuti ba cinquante centimètres cube du ko passé vitesse am du passé quarante cinq kilomètres heure Euh, bu fekkente ni motociclo la nag motociclo moom euh, ci euh, cilindrata moteur moteur am dana supérieur cinquante centimètres cube moom fi kay yam lay départ moom jëm kaw ba pare it vitesse am mi ngi dépendre ci bërëb yi mu nekk moom dafa am dafa mën a gaaw lool dafa mën a nekk véhicule bu gaaw moo tax dañ koy wutal ay limite sax ne bërëb bii bu fa daw lu ëpp lii bërëb bee bu fa daw lu ëpp lee ndax mën naa daw lu ko ëpp boo xoolee ci image bi fii moo ko agrandiré dañuy wax ni boo nekk Italie yor motociclo bu fekkee ci centro abitato nga nekk war a daw lu ëpp cinquante centimètres euh, cinquante kilomètres heure boo nekkee ci strada extraurbana secondaria war a daw lu ëpp quatre-vingt-dix kilomètres boo nekkee ci strada extraurbana principale war a daw lu ëpp cent dix bu fekkente ni ci autostrada nga nekk nag war a daw lu ëpp cent trente loolu moom mooy motociclo waa ñaar yooyu defe naa ku seetaan vidéo bi. mën naa am mu leer ci yow waaw képp koo xam ne nag bëgg ngaa intégrer suñu groupe bi euh, boo ma envoyé message ci whatsapp bi rek ci numéro bi trois 3 389 052 744 incha allah danañ la contacter wax la nooy def jërëjëf.